bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi wa xassin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xadaa'ina raxmatika yaa arxamar raximin yaa rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa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 di ko ñaan mu defal ñu suturas àdduna defal ñu suturas àllaaxira ñoo ngi nuyu soppe al misbaax yépp soppe al misbaax yi nekk ci biir réew mi soppe al misbaax yi nekk bitim réew di bàyyi xel jotaay bi ak ñun ci waxtu wii moo xam ñu koy déglu en direct la moo xam ñu koy dégluwaat ci YouTube bi la moo xam ñi nga xam ne dañoo ne ci groupe WhatsApp bu al misbaax yi te waxtaan yi di leen fa fekk la ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen jéggulu di ñaan boroom bi subxanahu wa ta'ala mu boole ñu jéggal di leen jaajëfal bu baax ci topp gi yëg gi safoo gi ak bége gi ngeen di bége jotaay bi jël nuyoo yeeg sant yëpp teg ko ci loxol suñu jigéen docteur Anna Dia di ko nuyu di nuyu docteur Souleymane Touré ak mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum paj yal na yàlla kàttanal leen sopp na bi wala bëgg bëgg bi meer mbaay ci ndar ñu ngi lay nuyu bu baax. di bég lool ci ni ngeen di toppee jotaay bi jamono ji moom jamono yëpp la am paj amoon solo waaye jamono jii da cee rawati ndax wéradi yi daa bari daanaka ko gis rek mën nga ko wax naka yaram wi ndax loolu kuñ daan seet si te nga tawat lañ koy wax waaye tawat yi feeñ tawat yi nëbbu tañ koy sooxaalee ko ëpp xam-xam gën a yokk lool ci wàllu paj waaye wéradi di itam gën a bari lool ndax lek yeeg yu baree bari yoo xamante ne dañuy gaar waaye borom bi subxanahu wa taala saafara wala jàngoro ju wàcc rek wàcceel na ko saafara moom kay ñu àgg ca tey wala ñu dox ba àgg ca rek yal na yàlla jëlee fi jàngoroy corona ji waaye jëlee fi yeneen xeeti jàngoro yépp te kàttanal suñu fajkat yi ba kuñ faj yal na nga wér te def jàmm ci réew mi ndax jàmm moo jige ay bis yee ñu génn réew mi yëngatu woon na lool. dafa tombe woon ak baax booba nekkuñu fi dañ doon baamtuwaat yi jàlloon waaye sant borom bi bu baax a baax ci xéewal gi mu indilaat bañ tàmbalee amuk dal lépp luy indiwaat jafe-jafe yooyu nga xamante ne mooy tax ñu baare mbedd yi mooy tax ñuy dóorante ay garanaat moo tax ñuy lakk alali jàmbur yi ak di ko yàq muy loo xamante ne yaakaaruma ni nit dana ko rafetlu yàlla buñ fa àgg ndax jàmm daa neex waaye bu nit ki di am jàmm da yëg neexaay bi léeg-léeg waaye réew yi nga xam ne amuñu jàmm nekkuñu ci jàmm doomi réew mi nekk bitim réew te gis réew mi te bëgg mu nekk ci jàmm ñoom lu ñu xante woon ci jàmm bu doon jaay ci bitik ñu jëndal Sénégal ab sëq bu doy ba nga xamante ne ñu ñëpp ñooy am jàmm yal na ñu ko yàlla boole sàmmal sàmmal ñu suñu kilifa yi diine yi seen taxawaayu rafet yi nga xam ne taxaw nañ ko ci te loolu nag mooy li nga xam ne moom dañ koy xaar ci ñoom. waa daara amati nañ ndam lu rëy te ndam yooyu lañ yàgg am dañ leen di desal ginnaaw ci lu bari waaye ñaare buñ jëmee ba cëgg desut ci guy seen taxawaay moom day am jeexital yu baree baree bari yoo xam ne moom lay def di ndokkeel bu baax suñu mbokkum daara sëriñ Cheikh Diop mi nga xam ne moo demoon ca concours alxuraan ba amoon ca Kenya teewal fa réewum senegal yàlla dogal mu jël fa numéro deux ndombak tànk googu ñu ko takkal ci alxuraan takkal ko réew mi nga xam ne ña fa teewoon te doon jàng alxur kati alxuraan bàyyikoo ci àdduna bi yépp danañ naan kii fu mu bàyyikoo ñu ne senegal ndax léeg-léeg nga wax ci àdduna bi senegal ñu laaj la fu mu nekk ci Afrique laaj la yéen ñaata pour cent moo fa nekk ay jullit tey loolu duñ ko nattableeti ndax bokk nañ ci ñi dàkk jàng alxuraan ci àdduna bi suñu boroomi xam-xam bokk nañ ci ñi gën a respecté ci àdduna bi loolu la yàlla dogal. boo génnee bitim réew am na ay boroomi xam-xam yu nekk ci réew mi ñoo xam ne ci université yu mag ya lañ génne takk garaati xam-xam yépp ba nga xamante ne penc xam-xam ya la toog toogal fa réewum alxuraan mu nekk suñu sakk suñu maam docteur Mouhamed Ahmed Lo ci la bokk waaye Serigne Cheikh Diop mii demoon teewali réewum Sénégal ca concours alxuraan ba te jël fa raay réew woowee mu fa jël fekk si wa ñoom mujj taba jëloon. ak ñoom soxna euh, maam jaara ngom ñoom soxna maymuna loo bu suñu baay sëñ Moustapha loo ñoom soxna ndomboor seen ak ñi nga xam ne génn nañ ci réew mi dem gañe ji ay médailles yu rëy yoo xam ne alxuraan a ko gañe loolu daa bokk ci li nga xam ne réew mi ko moom yàlla nañ ko muurloo xame ci lan mooy njariñul daara ñu gën koo dolli mu gën a jëm ca kanam te yàlla defal ñu ak njub ndax buñ xasee ba am ak njub tegu ci yoonu jub jàmm day am ci penc mi moo tax eh, al istixaama gi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mooy ak njub jubug jub xocc ci yoon wi nga xamante ne mooy tax àgg ca borom bi subhaanahu wa taala la moo tax lislaam am njàngaleem day wuuteeg njàngale yu bari ba noppi gën leen a mat boo demee ci àdduna tey bu ñuy wax ci wàllu liberté day mel ne dañuy tinki ñëpp daan ni liberté moom ñëpp ko am waaye tey boo demee ci àdduna si da ngay gis ne liberté yóbbu na leen ci góor saña am jabar ju góor jigéen saña am jëkkër ju jigéen ne moom waaye ñu ne ginnaaw ñoom ñoo ko taamul seen bopp ci seen coobare bopp loolu seen liberté la nañ leen bàyyi ñu def ko ñu koy def ci penc ma di couple dama ko ñëw réew mu ma demoon taxaw naa ci ab barab ñaari xale yu góor romb ma ñu nekk suñu morom man damaa jàpp ne ñaari xarit yu ànd lañ comme ni ma àndee sama xarit bi ma àndaloon Cheikh Abdul Ahad mu ne ma xam nga ñaar ñii ay lan lañ ma ne ko ñii kay xanaa ñaari xarit yu ànd lañ di doxantu mu ne ma déedéet moo ne de kenn ki mooy jabar ji kenn ki mooy jëkkër gi te ñoom ñaar ñëpp ay góor yu soli tubay lañ fa ñuy waxee daane laguñ rek ña nga kottante di liiki liiki di wéy waaye lañ jàpp nag mooy liberté doomu aadama moo toll foofu bu ko defee ñu libéré sañ-sañ yooyu nga xam ne ci ci ndoorteel liberté da nga naan lu baax la ndax danga naan ku ñuul ki duñ ko xañee ak xam ku xees ki duñ ko jox àq yu moomut ki màggat dañ koy jox àqam xale bi dañ koy jox ay àqam ci wàllu jàng ak ci wàllu faj liggéeykat yi dañ leen di jox seeni àq jur gi sax dañ leen jox seeni àq ba ci xaj yi sax am seeni hôpital ak seeni garab ak ñu leen di saytu ak nuñ leen di toppatooyee waaye loolu la ñuy àggale nag bàyyi muy dem rek ndax dafa amut leneen loo xam ne moo taxaw nag léeg-léeg di ko tënk nga xam ne buum gi day teeng dem mbaam am fu mu toll boo xam ne danaan fa la yem moom libertéem am liberté bu wër la waaye nag liberté bu mu tënk la ndax nit ki bañ a dugg ci loo xam ne da koy da koy lor léegi nag al istiqaama mooy bi muy dox ci sañ-sañam yooyu mu am fi mu te àgg mu am lu ko naan stop nga xam ne day taxaw du fa àgg fi mu sëñ te àgg nga xam ne day taxaw du fa àgg loolu mooy al istiqaama wa anna haadha siraati mustaqiman fattabicuuhu wala tattabicu subula fattafaraqa bikum an sabilihi dhalikum wassaakum bihi laallakum tattaquun borom bi nee na ak njub laa leen rëddal mooy yoon wu jub wi jëm ci man jaar leen ci mooy sama yoon te mooy yoon wu jub bi siraati la wax siraati samaw yoon la maa ko moom mustaqiman mu yoon wu jub woo xam ne ku jub man nga cee mooy dag may déggal bu ma nee la jàppal nga jàpp bu ma nee la bàyyil nga bàyyi jaar leen ci topp leen yonent bi waaye bu leen topp ñall ñallaan yi waaw ñall yi mooy yoon yi nga xam ne du voie bu mag bi jaar ca man naa yóbbee nit mu réer mooy ku teggiw yoon boo dégloo sax ci suñum réew bu ñu yóbbu nit di ko àtte ji dañ naan koy yóbbu ci yoon dañ koy teg ki yoon waaw kay daa jàdd yoon yoon wi nag yàlla nee na man sama yoon man yu ma reconnaître jàppe ko aw yoon ku ci jaar jub moom nga koy ñaan booy julli moo tax nga naan ko ihdina siraatal mustaqim yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoon wi nga xam ne mooy tax a agsi ba noppi ku agsi indaale ngërëm waaw ku agsi indaale ngërëm yàlla nañu may kàttan guñ ca jaare kon bu leen ko topp bu leen topp ñal yi jaar leen ci yoon wi nga xamante ne mooy yoon wu jub bi loolu mooy liberté gi nga xam ne moom la lislaam jàngale te ak njub jar na lu ne al istiqaama aaya yi nga xam ne moo koy wax ci alquran bari na lool jotoon naa la ci indil aaya yu bari waxoon naa la ne saytaani daa wax borom bi ne ko dinaa gàllankoor sa gaay yi ba du ñëw danaa leen gàllankoor ndax ba ko waxee ne ko fa bi ma axwaytanii lam ko ci tegal mooy la aqudanna lahum waaye siraatakal mustaqim danaa leen gàllankoor fee siraati la yàlla waxoon seytaane gëm na loolu xam ne lii mooy yoon wi yàlla reconnaître moo tax mu ne ko sa yoon wu jub wi wa ana wa anna hadha siraati mustaqiman fii mu ne ko la dan aqudanna lahum siraatakal mustaqima danaa leen gàllankoor ñoom nit ñi baduñu jaar fi nga bëgg ñu jaar fa nga xam ne ay pexeem moom yépp mooy ñu ñàkk a jub pexe seytaane mooy ñu dëng luñ gën a dëng rek moo ko gënal luñ gën a sori lii maye ngërëmul yàlla rek looloo gën a sedd ab xolam moo tax nga mën a wax ñun ay layig lañ xam nga ab jullit mu mën a toog ci pénc ñuy waxtaane yu am solo ca pénc ma ci ay njariñ mu ne nañ ñu may ñun yoruñu état islamique ay layig lañ suñu luwaa moom mën naa doon luwaa yuñ tënk ci wàllu laïcité ak suñu programme politique waaye ñun moom ay jullit lañ ak lu mën a xew ay julit lañ te kenn dàquta tooñ kuy dox diggante nit ñi ak seen borom borom ben ko waxoon ca wàllu jumaa jàkka ne kenn dàqutu tooñ ki nga xam ne day tere nit ñi ñu ñëw ci jumaa ji ngir jaamu si yàlla nga dégg ci ne kenn dàquta tooñ koo xamante ne nii day dox diggante nit ak ak jaamu day dox diggante nit ak mu def li mu war a mën a def seytaane nag nee na yàlla gaa yi duñ ñëw de danga yaakaar ne ñoo ma gën ba tax nga génnee ma waaye danaa ne faax ci yoon wi tax ñu jëm si ci yow moo tax seytaane lay indil ay détails moo lay indil détails yi kii dalaa bañ moo lay indil détail kii daf lay sikkal seytaane moo lay indil ay jax jaxe moo lay indil ay dut yu bari ci sa bopp bi ba dangay yëg ne yow ki nga waroon a doon du yow mii moo tax mu ne danaa leen dikke ndeyjoor ak càmmoñ danaa leen dikke kanam dikke leen ginnaaw summa la aatiyannahum ni ay aydihim wa min xalfihim wa an aymaanihim wa an shamaa'ilihim wala tajidu aksarahum shakirin kooku mooy seytaane loolu ci ay pexeem la bokk borom bi nag ne man damay woote yàlla nee na maa ngi woote waaye fan laa leen di woo ngir ngeen jëm fa mooy ngeen jëm ca këru jàmm ga yàlla nee na mi ngi ñuy woo ngir ñu dem daaru salaam waaw bu la neexoon nga ne daaru salaam kon daaru salaam mooy kërug jàmm kërug jàmm am na dëkk bu ko tudd ca boori Mbàkke maam Seex Anta ko moom Sëriñ Tubaa ko sancoon gannaaw ba mu nekkee Mbàkke Bawol waaye am tuuti ñàkk a dox digganteem ak nit mu sanc mu sanc ab dëkk tudde ko kërug jàmm gi waaye assalaamu itam day tekki yàlla bu boobaa mu nekk kër goo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko gannaaw bu la ko jox maam Cheikh Anta moom la ñuy wax daaru salaam borom bi nag seytaane nee na nee naa ne faax ci yoon wi ba kenn du ñëw kenn du egg si yàlla ne man maa ngi woote fan la ñuy woo ilaa daari salaam ngir ñu jëm ci këru jàmm ga këru jàmm mooy aljanna xam nga tey ki dem ci hôtel mu neex lool wala ca fa muy gammaajoo mbir ya nel yaxtu ca kanam lool ba neex waaye nekkiwu fa topp yàlla xam na ne bi fay ñëw ñu génnee ko fa ndax ñi amoon pale sax bañ faatoo ci seen biir pale ya génnee nañ leen waxim pax ba mu xóot ñu suul leen suuf féete leen ndeyjoor suuf féete leen càmmoñ suuf féete leen kanam suuf féete leen ginnaaw waaw léeg la ñu suul kilifa gu mag goo xam ne danga naan kii nuñ ko mën a wàqee suul ndax soppeek nga xam ne gëj naa wéet foo ma sa taxaw mbooloo ñooy taxaw sa kanam foo yandu foofa di nit ñi topp la waaye li taxoon borom bi def ko ci yow te nga nite ba yëngoo ko dal bis bu ko roccee bu dee bitim réew la ko roccee boo moytuwul bagaas ngay doon boo dee ñibbisi ca bagage yi nga jëm bu ko roccee ci réew mi it ak loo màgg màgg màgg luñ la fonk fonk fonk dañuy wàqe am pax bu mu xóot ñu dugal la ca denc la dem ñibbi kon pexem pexem sànq sànq sànkaate mooy tax a jóg saytaane waaye lay am njariñ nag mooy buñ la nee yulub ca pax ma fañ la sànni doon daaru salaam ci yow doon këru jàmm ci yow wa yahdi man yashaa'u ila diratin mustaqim yàlla nee na may gindi ku ma neex yal nañu gindi yal nañu gindi jubal ñu teg ko ci yoon wi nga xamante ne mooy yoon wu jub bi teg ko ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jub bi te mooy yoon wi nga xam ne ku ca jaar suñ borom subhanahu wa taala gërëm la siraatal mustaqimaa ngi noonu jeneen aaya borom baa ngi wax naan lillazina ahsanu lxusna wa ziyaada wa ziyaada wala yarxaqu wujuhahum xatarun wala dilla ulaika asxaabul jannati hum fiha xaalidun borom bi nee ñi nga xam ne dañoo rafetal ñi nga xam ne ci àdduna dañoo rafetal dañuy jëf lu rafet yàlla nee na fay gu rafet ñeel na leen aljanna ak ndolleen waaw danaa leen fay ba noppi dolli leen boroom xam-xam yi nee nañ dolleen gim leen di dolleel mooy ñu gis yàlla waaw ñu gis ko nekk àjjana ba benn bis benn yoor-yoor suñ borom ne tëll seet si leen allahu akbar waaw ne tëll seet si leen def lu rafet baax na fii jaamu yàlla ak jëf lu baax suñ borom a ko tudde rafetal kon waroo bokk ci liy ñaawal li xew léegi nga xamante ne mën ngaa wax toj-toj nit waaw xaste rek nit ñi saagaa rek di wax lu ñaaw ci biiru mbokk rek di yàq ay diggante di jëf-jëf ju ñaaw loolu baaxut moo tax lillasiina ahsanul xusna wa ziyaada wala yarxaqu wujuhahum xatara wala zilla ñooñu duñ gis ci àdduna lu leen duñ gis eh, alaxira lu leen soof waaw kanam du fa gis lu leen neexut ndax ñoom waa aljanna lañ ulaika asxaabul jannati hum fiha xaalidun ñoom kay ñooy waa aljanna àjjana la ñuy sax ba faw kon def lu baax am na solo te loolu mooy dëgg-dëggi li nga xam ne mooy ak rafetal jeneen aaya ci tomb bi may waxtaane di al istixaama borom baa ngi wax naan wa awxaynaa ila muusa wa aqihi an tabawwa'a li qawmikuma bi misra buyuta waj'aluu buyutakum qibla wa aqimu salata wa bashiril mu'minin buyutakum xibla mooy ngeen bàyyi ma xel borom bi nee na maa wax Muusa ak mbokkam ma Haaruna di ñaari yonent ne leen nañ wax seen nit ñi ne leen jàpp ni dal nañ leen ci kaw suuf man nga ko waxe noonu moo xam misra la moo xam fañ war a delluwaat la ca baytil maqdis waaye nañ ma bàyyi xel ci taxawal julli yàlla nee na loolu mi ngi koy bégale ñi nga xam ne ñoo ko gëm jeneen aaya ci tomb bi ñuy waxtaane di al istiqaama ak ni ko alquran gisee wa xaala muusa rabbana innaka aatayta firawna wa malaahu na siinatan wa amwalan fi xayaati dunya rabbana li yudillu an sabilika rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yuminu xatta yarawu alcadaab alalim xaala qad ujibat dacwatukuma fastaqiima wala tattabicaani sabila alladina laa yaclamuun déggal loolu Muusa ma ngay ñaan boroomam subhaanahu wa taala ma ngi koy ñaan di wax ak moom naan ko yàlla jox nga na mbooloo jox nga ko alal taaralal nga ko àdduna na kàttan gi nga ko jox mi ngi ciy réeral nit ñi mi ngi leen di gàllankoor ba mënuñ laa topp ba mënuñ laa topp yàlla yàlla nag ma musal ci alal fëkk ma wala pexey na yi di fëkk sama xol bam ñaanee ba noppi rek suñ borom lam ko wax mooy nangu naa sa ñaan gi yàlla jaar naa ak Muusa foofu yàlla jaar naa ak foofu fu baree baree baree bari keroog ba Muusa nan ko rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli déggal Muusa li muy ñaan yàlla mooy lépp lum ñaan yàlla te loolu du li nga xamante ne daa dugg ci biir nguuru yàlla gi yàlla da ko naan soxlawuma ko jëlal maanaam li nga xam ne yàlla da ko moom daa am loo xam ne yàllaa la moom yëfi yàlla la du yëfi nit danga ko koy bàyyee waaye lépp loo nit da koy am yàlla nee na boo ma ko ñaanee noppi ngir may la ko mi ngi aju ci sa jom rek Moussa ne ko a kon yàlla rabbi srah li sadri waaw defal ma sama dënd bi mu yaatu ba duma gaaw a mer wa yassir lii defal ma samay affaire yomb waaw wa yassir lii amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli feccel ma samaw làmmiñ ndax damaa dotom bañ mën a comprendre li ma wax waaye wajhal lii min ahli defal ma ministre boo xam ne sama ñooñ lay bokk Haaruna Aqi maa ngi proposé Haaruna mii sama frère nga def ko ministre waaw Haaruna Aqi ba ñaan nga daanelee suñ borom da ko ne xat uutiita soxlaka yaa Muusa Muusa li nga doon ñaan lépp jox naa la ko jëlal daal koy fàttali ne ko am na lu ma la mas defal sax te ñaanoo ma ko dangaa gaaw a rek waaye kon nga xam ne lu ma la dig def ko ne ko kero ba la maa ko waxoon ne ko na la sànni ca géej ga maa la sàmmoon maa ko digoon ne daga doonub yonent doon nga ko tey maa ko digoon ne daga dellu si Égypte dellu si nga tey kooku mooy borom bi subhaanahu wa taala boo ko bàyyeeg lim moom ñaan ko li ab jaam yellool noppi na ngir jox la ko mu ne Muusa wuyu naa sa woote bi yaag Haaruna waaye nag fastaqiima na ngeen jub na ngeen jub na ngeen tegu ci njub doon kilifa du tee jub yàlla loolu la wax Muusa waaw na nga jub yaa war a gën a jub ndax dañuy xool ci yow waaw sa njuumte du njuumte lu ordinaire na nga jub bul topp mukk yoonu ñi nga xam ne xamuñu wala tatabiaani sabila alladina laa yaalamuun waaw ku xam wërta topp wërta mel ni ñi xamut àdduna day tukki kon àdduna day tukki defe naa tey ki jàng droit ba nekk ab awoka wala muy nekk nitu yoon laa bëgg a wax am na njuumte yoo xam ne bu ko defee ba yoon jàpp ko dana wuute ak man mi nga xam ne ma dara ci wàllu yoon nuñ ñu war a jàppee ak nuñ ñu war a attee ndax xam nga daa bokkut waaw maanaam tuuti ñàkk xam gi mën naa wàññi délib li ngay def waaye ki jàng ba xam ba dañ ak réer bëgg yab def ko morom di ko fontoo du sotti moo tax borom bi ne Moussa yow ab yonent nga yaak Haaruna yemoo ci ab yonent yow Moussa danga bokk ci juróomi yonent yi gën a am volonté yemoo ci loolu waaye damay wax ak yow waaye nag Muusa yaag Haaruna fastaqima waaw na ngeen jub na ngeen am na ngeen sax ci al istiqaama wala tatabiaani sabila alladina laa yaalamuun bu leen topp ñi nga xam ne xamuñu moo tax nit du topp ko xamut waaw xamut léeg-léeg muy ku jàng lu mën a jàng ba nga jàppee ko intellectuel te fek xamul le xew ndax xamul yàlla mosagu ko yàlla safagu ko mosagut ak mbaax yoonu njub yi téelagu ko kooku nag bu la ba nga topp ko ngeen ànd sànku te yàgg-yàgg wërsiwaat yoon wi ngeen def kon wala tatabiaani sabila alladina laa yaalamuun boobaa nag inni tawakkaltu inni rabbi wa rabbikum ma min dabbatin ila huwa aaqisun bi naasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim da ngay wax ne maa ngi bàyyee yàlla sama bopp wéeru naa ci moom ndax mooma moom moo leen moom yéen nit ñi amut dara luy dox ci kaw suuf lum mu mën a doon moo xam nit la moo xam bàyyi ma la ba ca sànq leen yi lu dul ne suñ boroom a ngi jàpp ci ak naanoom moo yor la muy dukkate ba kanam a ngi ci loxol suñ borom subhaanahu wa taala kon nag tegu ci yoon wu jub bi mooy li nga xam ne moo ñuy xeetli yàlla jàpp yàlla lal ba def lu baax yombuñu bu ñu yombee yal na ñu may ñu man koo sellal tam saxal ñu ci boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu ci ak njub suñu kemtalaayal kàttan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen bégee di békki ni di toppee Al Misbah ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu nangul jaajëfal Oustaz Alioune Sall ñaan ko mu def concept jàmm noppalu ci jàmm dellu siwaat ci jàmm te fekk ci jàmm moom la ñuy àndal déglu waxtaanu fajar yi nga xamante ne waajal nañ ko bàyyi ko fi ñu ànd wétli ko ko